saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat ba war a dox ci diggante Boy Niang ak Tapha Tine ak ña doon dox ca suuf ngir yàq bile combat Leewtoo production mbooleem la mu liggéeyoon diggante Boy Niang ak Tapha Tine am na ñu nekkoon ca suuf bëgg ko yàq seen objectif du leen dul combat boobee bañ a taxaw ba ñu aakimoo ko lobby yooye yemuñu ci Boy Niang ak Tapha Tine waaye dañoo mujjee àgg ba ci Gris ak Balla Gaye 2 ñaari combat yi gannaaw ba ñu taxawee ba noppi dafa am promoteur boo xam ne li ko intéressé mooy diggante Balla Gaye ak Boy Niang 2 ñoom ay lobby lañu pare woon nañ ngi teg ci boobu combat xaalis bu bari loolee nag bu antu woon diggante Gris ak Balla Gaye 2 dana yàqu diggante Boy Niang ak dana yàqu bile combat nag Pape Thialis dafa def yëfi muus daal gaaw dem finaliser ko muy Boy Niang di Tapha Tine ku ci nekk compaloon na la ci sa kase waaye bu nekk ci ginnaawam fa séene yàq bile combat dafa daw gaaw joxaat leen leneen dafa jëlaat xaalis yokkalaat ñu nekkaat ci seen bopp bu dee Boy Niang 2 moo ca des waaye gannaaw dafa nekk ca reefaan Pape Thialis da koy xaar ba mu ñëw Dakar mu jox ko wàllam loolee nag bi mu amee déggool dafa dalal xelu Pape Thialis ne ko même bu ñu doon jox un milliard it bile combat duñu ko yàq Boy Niang dafa nekk ci yoon ñaanu dul yàlla trahir kenn dama bëgg amateur yeeg axlu lamb yépp xam ne Tapha boo Boy Niang 2 lay taseel bu dee Max Mbergane may coordonnateur Leewtoo production la mu xam le mooy ay lobby ñoo fi nekk ngir yàq bile combat yeneen i acteuru lamb ñoo def seen coup ngir yàq diggante Boy Niang 2 Tapha Tine ak Gris Bordeaux la ñu bëgg nag du leen lu dul diggante boo Niang 2 ak Balla Gaye a sonn te a taxawal diggante Boy nag Ousmane la koy wax promoteur bu bees la dafa bëgg a dugg ci lamb ji saison ko jox bu ko doyul na ko ko dellu xalifa ba tontul bi taxawee danoo jox benn sekku 20 boo xamante ni mënuñu koo retirer fenn bi nu delloo ci moom taxawu ko ci la daal jox Gris Bordeaux 10 ne ñaari tranche la koy def loolee mooy firndeel ne desel na ko 15 ba Gris Bordeaux taxawee lu yàgg toog lu yàgg déggul gisul ci la laaj xaalisam loolee nag mbër mu nekk am nga ci droit xaalis bi mayu la ko saraxuñu la ko dangaa signé combat signé combat di combat royal foofee ca Gambie mooy diggante xooyantaan ak double Tyson bile combat royal Jabel promotion moo ko taxawal bile combat promoteur bi pare nag xooyantaan pare nag double Tyson leen ca des loolu la xaar muy corona bu fi jóge ka war a jóge le 31 octobre mooy Alioune ma jiite CNG ndax Matar ba day changé keneen wala da koy tegaat ci bopp CNG bi loolee kenn xamagul li am ba des mooy le octobre bi la fas yéene jeexal songaan ngay wax doomu daangu wax doomu kuunun wax góor gi étudiant bile écrit victoire la nu si ne ci saison ren bi góor gi étudiant moo daan Boy Baldé bu Kër Masaar doomu kuunun daan Lumumba bu Waalo Ronaldinho daan Clémenceau bu Grand Médine mbooloo songaan deux daan caatu Ziguinchor bu Yoff mbooloo Rambo bu songaan ngay daan Tooro bu jëf soog a nekk Seex naa daan Maama bu Boy Sey Sita daan Megan Ndour bu Badajon Ngaale Jey la daan Bébé Ëma bu Boy Sey Kaani Sadam xam-xam doomu kuunun daan daan Zo bu Kër Masaar seen huit defet yi Kayma moo daanu ak leer gi ak Karbala ay dara Doudou Koné de Numan ak général Tam yi la mbër ci écurie boobee ñoo ci ami défaite bu dee seen secrétaire général ba maam ñaaw la mu xamle mooy bilan bu positif la dañuy sant yàlla julli ci yéen bi te xam ne bii bilan bu baax la saison beeg ni mu demee ku ci am 8 ak 11 victoire da sant bu baax jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci étu yéene bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah